sëriñ Tuubaa xaadalahu ndax maxtaar la nee na jaay muy jar te borom nanguwu caa génne xaqi suñ borom subhaanahu wa taala nanguwu caa dimbale ay mbokkam nee na day gaaw a bari bu baree mu jayu bu jayoo jiil bu jilee jooy tàbbi jahanama waaye ku jébbalu di julli di joxe jannatu rekk mooy pay ga am na nag ak wuute tuuti ak wa ñu indi woon moo tax ñu indiwaat ko mën naa am muy ñaari nettali maanaam ñaari waxtaan wala muy wuuteek lamiñ yi nga xamee ne ñooy nettali sëñ Cumbuleen Busa radiallahu taala anhu bi mu ganee àdduna sëriñ Tuubaa xaadaleku laxmatalahoo moo bind turwa ci suuf siiw na sëriñ Mouhamadul Mahmoud Ñang radiallahu taala anhu bi mu ganee àdduna sëriñ Tuubaa xaadaleku laxmatalahoo moo ko tuddee noonu wax ne bu leen ko wooye seen turi cosaan yi wér na lool serigne abdul Qudus radiyallahu ta'ala anhu sering touba khadalahu allah ta'ala moko tuddé noni ak serigne abdurrahman radiyallahu ta'ala anhu boba nak ma nga ci werna ma ngi jort jort na itam serigne muhammadul habib radiyallahu ta'ala anhu serigne bi moko tuddé noni ñoo ñi ñep nak doomi mam cierno lañu radiyallahu ta'ala anhum wallahu a'lam ki janggal jangal serigne tumbulen radiallahu taala anhu mas naa ñëw ci sëñ tubaa xaadalahu rahmatala mu ne ko ana sama doom ja mu ne ko ma nga fa ba mu ko indee ci sëriñ bi mu laaj ko fa mu toll mu wax ko fa mu toll sëriñ ne ko mën nga koo taree mu ne ko waawaaw sëriñ ne ko taril muy tari ba agsi ci wa innaka la tahdi ila siraatal mustaqim sëriñ tubaa xaadalahu rahmatala ne ko foofu doy naa yam foofu doy naa yam jox ko ab kamil ne ko boo demee nga jàng ci bi te bind beneen andi ko sëriñ tubaa xaadalahu laax maxtaara lahu mas naa wax sëñ basiiru doomam radiallahu taala anhu ba mu noppee ci alxuraan ne ko demal ca ibra binta silla radiallahu taala anhu barkeelu ca alxuraanam jooji ndax bi ma saa di jox mbootum alquran ci géej gi saa xel dana yaral ci moom siiw na sëriñ tubaa xaadalahu laax maxtaar lahu daana tàmbali ab kaamil ne nii laa bëgg nga binde ko ko wala mu tàmbali ab maas ne nii laa bëgg nga maase ko ko kooku mooy sëriñ Ibrahima ñu tuddoon léegi radiallahu taala anhu sëñ Njaago radiallahu taala anhu bi muy jébbalu ci sëñ Tuubaa xaadalafu lamataloo daa ñaan lu yàgg taf li ne ko nongul nan la ko daa ne ana Mad Lamin mu ne ko maa ngi nii sëriñ bi ne ko àndal kii lu ngeen di liggéey mu di ca liggéey te toog fa yéen sëriñ bi ne ko xam nga ko mu ne ko xamuma ko sëriñ bi ne ko yow sëñ ko xam nga ko mu ne ko déedéet sëriñ bi ne ko bu ngeen àggee bu ngeen waxtaanee da ngeen fekk na ñoo bokk lépp wér na lool am na ku doon jàngal sëriñ tubaax xaadala fu laax maxtaar loxo bi mu faatoo sëriñ bi jëli lu rakkam ba mu ñëwee taxul mu man ko sëriñ bi di ko jubbanti ba mu mel na mu ko bëgg njàng mi nag njàngum yëkkati la woon soxna amar ak soxna xawa saar radiallahu taala anhuma sëriñ tubaa xaadala fu laax maxtaar leen yónni ci góor ñi ak ci jigéen ñi na sëriñ tubaa xaadala fu laax maxtaar nee na li yàlla bind fii la ko teg muy ab loxoom nee na tubaab yi nee nañu ñoo ma yóbbu wax nañu dëgg de waaye fekk na ma may wut yóbbu gi lu yàgg te gisuma ko saa borom daa am lu gën lépp bi mu waxee ñu baax ñeeg yonent yépp ne lii de ku ko am yaay doon kilifa ak ñépp ma ko doon wut te xamuma fu mu nekk fekk na jege na ma lool ba tey lii mel na ne ci nettal bi la bokk li tax ñu koy teqali dañoo yaakaar ne am na lu dox ci diggante bi bisimilah. serigne bi neena na ma toog mbakke kajoor sil mako job ñew ne ma dama bëgg sama digg ak tuba bi nga wax ci mané ko waaw ñu bokul ak bëgg danañu masa tasee mu ne ma bo mënul li damay jébulu ma ko bo jébulo de ma dendale la ak ñaar lo ci fob baxna ne ko nga bëgg kula tass tassar tasar takkaat la am kula ne mu ne ma xamna kaw gi way xawma biir gi ma leral ko ko ci neeg bu waaf te ñu bëgg mu jugaat manes nako taxawla defaraat ko manes nako wut yeneeni bant defar ko muy beneen néeg nangul tas tasar gi ma ne ko kon ñu ñuut la nee na bi ma waxee moom ba nopp sayna jibril alayhi salaam ne ma ki nga doon waxal kat lëf xew na ci tas tasar day yaa ko génne ci dencukaay buur te xajatu ci te ki nga doon jox bañ na te yàq ma ko kon wallahu ahlam baat boobu muy day mel ne sëriñ bi ci gàttal képp ku ko jox sa bopp faaw mu seetal la léeg-léeg nag maam faaw mu setal la léeg-léeg nag am euh, dana am ño xamne dana ñu tak tak go xamne dana da ci ñom lu metti métti wala ñoo xam ne bi dimbalé ñepp ak xeetali ñepp mo waral muy dem ci géej amna itam ay sew-sew yo xamne bu nu ko bëggé leeral du nu ko xam li ñu jëriñ dal moy nu xamne mo dimbalé sil ma jóob amna itam coono yu metti ci dimbalé gi ndax serigne bi waxon na ne diw ak diw lima da ci ñom ñeneen ñaar manam keneen ku mën nar a fekkate mu bàyyi la sa borom waaw sëñ sàmbay radiallahu taala anhu nettali na ko ndax nee na sëñ bi ci boppam wax na ne ne am na diw sàngam waxu tur wa waaye daj na ci moom loo xam ne nee na ba mu suñ borom suñ borom lëkk koy arab lëkk ko lenn wala fi leer naññ la wax ak moom ne ko njëkk nangam kat njëkk lay jar ca marché ba njëkk sàngam nangam lay jar ca marché ba nee na lii la ak moom kon sëñ Tuubaa daj na lu nekk ngir xettali rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon nañu gën a góorgóorluwaat bu baax a baax fexe ba li ñu sëñ bi bëggal ñu man ko te loolu mooy sax ci ak jub te moytu tooñ moytu bàkkaar moytu lépp loo xam ne dana jural nit ki ay jafe-jafe ci àdduna ak alaxira yàlla ñu yàlla saxal ci sopp sëriñ bi ak liggéeyal ko wallahu a'lam am na ko mu mas a siyaar si sëñ Tuubaa ne ko dama ragaloog ñàkk sëriñ bi ne ko danaa la digal loo xam ne boo ko defee dootoo ñàkk mukk lo amati joxe ko ngir yalla lolou boko defé do ñak mukk wér na lol ngir yalla subhanahu wa taala nak fimne boko ne dul joxe ngir yalla itam du tee day doliku waye nak do am tiyaba da do am tiyaba am na bis ñu ray aw nak ci pénc mi serigne touba khadalahu la motaloo wax cheikh ibra fall taala anhu demal dag la ci gëna bax andil ma cheikh ibra dem wut ndab lu set def ci xol ba andil ko benen yoon ñu rayat aw nak ca pénc ma mu ne ko demal daggal ca gën a bon andil ma Cheikh Ibra dem foofu ndab lu taq def ca ab xol andil ko sëriñ ko Ibra Fall noonu la kii rekk mooy baax kii mooy bon muy ab xol xol mooy baax xol mooy bon lii mooy li mu wax ne fa in turid islaaha awsalin maa li waj man liyaidaahu xammaa fa aslihal xelba bila tatniisi xata tura bilahi saatanaasi sëñ tubaa xaada lahu laax lahu masna war seigne mbacke bu sa law ta'ala nu ak garab digal ko famuy dekke digam ak fi juma nek tol na digënté garab ga ak fi juma nek werna amna nar bu ma sa wax seigne tuba xamata lo talibi dañuy wax ne sa qasida yi ñoo gën alquran serigne ne ko waxuma ko nonu de waxewuma ko nonu de dama wax ne ñoo bok fuñu bayiko te yeen mo gën ci yeen alquran siwna batay li ci la and li tax ñukoy takali dañu yaakar ne ki doon netali mo koy leral waxi serign lii mo ko leral waxi serign bi dafa wax ne alquran fasu bur la fasu bur nak am ko taxu nga am wuddu wa ca war wala nga am gafaga ga ca war ba nga dib gawar man ko war xam fa mu la jeme sama qasidi nak nag deur la wu ñu wulli ba mu mok ku jall seen ginnaaw ñu yobula ba fa nga jëm wallahu ahlam li nak dama fatali hadith bobu yonente bi sallallahu alaihi wasallam wax bari na koy jang alquran alquran di ko rëbb wallahu ahlam amna mak mo massa mas faatu ci njare seigne touba khadalahu allah ma taala wax ne nañu ma xolal fu mu tollu ci man ñu ne ko bàyyi fi aw fas akub lal sëriñ bi na lu bok ci sama liggey bi motax may wax ñu ne ko fi dara lu bok sa liggey bi sëriñ bi na len bu ngeen demee ngeen jaay faswa set ku rafet loxo ngeen neexale ko ko mu bindal ko fukki bayit ak ñaar ci sama xasida yi ngeen moomale ko ko bala ñu koo denc bala lu amee sëñ Tuubaa xaadalafu la mataloo na leen li ma def xanaa jaaxal na leen ñu ne ko waaw sëriñ bi na sama xasida yi de lu ci waay bàyyi ginnaaw lu mu néew néew néew bis bu faatoo ba ñu dugal ko ci biir bàmmeelam lu ma gaaw gaaw gaaw danaa fekk la te war ñi ci moom ñu def ko ba nopp ñoom xasida yooyu siiw na la sakka fi kaw ni makaatibi lada rabbi junuudan minhu safat xalada sëriñ bi nee na sikkul sikkul moom ne ay mbindam ay kuréel lañu fa yàlla subhanahu wa te loolu mooy ay jëmm lañu ba tey danañu xam ci nettali bii ne jaawartukat daa am darajey sëriñ bi tudd ko ci ko faatu waaye xaside yëpp ñooy texeel xaside yëpp ñooy ràmm wallahu alam am na ku ma sa yët sëñ Tuubaa xam waxtalowoo am mbind mu di ko xool ba mu yàgg mu ne ko xanaa da wér na sëriñ Moussa Halima Guèye radiyallahu taala anhu la koy wax fekk na noonu la demee ndax da ko mortalil am njàngam danañu leeral lool ne sëriñ bi fonkoon na bind mu rafet wallahu aalam sëriñ Tuubaa xaada lahu maxtaara lahu am na ñu mas a bindloo ab kaamil ba ñu ko indee mu ne leen qu anfusakum dem leen bindaat beneen ba ñu ko bindee ba indi ko mu ne leen wa ahlikum naaran dañuy daal di xam ne bind du yam ci kiy bind barke ba day jàll ci ay doomam ak i sëtam ba ci ay soppeem lu mu gën a bëri rek barke ba di gën a tasaaroo in allaha la yaslamu misqaala sarrati wallahu aalam a tubaa xaada lahu llahu maxtaara lahu am na ku sant waar ku mu mas wax bindal ma kaamil bu doy waar ma wutal la àjjana ju doy waar mu dem bind ko wér na sëriñ tubaa xaada lahu llahu lahu mas naa fekk sëñ musaa halima radiallahu taala anhu fa muy binde fel yi sam mbind mi sëriñ ne ko Moussa lii lu mu mu ne ko ay fel lañu sëriñ ne ko fel yi kat dañoo war a dem nee nañu ca boob yi fel ya kenn gisatu leen ci njaareem gépp dañoo daal di dem loolu nag dëppoo naag la Cheikh Modou Fadel Mbacke waxoon ca njéeréer ya ba kenn gisatul benn njéeréer ci réew mi yàlla nañu yàlla doole fel Cheikh Al Khadim te taas ñu ci barkeem mi nga foofu la ñuy taxawee xam naa ba suba ak jàmm di ñaan suñu borom defal ñu dégg ak topp te fel ngeen ci doon ànd ak seen mbokkum taalibe Baye Serigne Diaw moom Baye Mbaye di bàyyi ko fii ci daara Baye Serigne Diaw Mansour wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu subaak jàmm incha allah